Guédiawaye ci kanamu préfecture bu Guédiawaye ñu fas yéene ànd ak le préfet kon de Guédiawaye def euh, le tour euh, de la banlieue surtout euh, banlieue bi yëpp presque dinañ ko wër ngir def état des lieux couvre-feu bi fu mu toll xam ngeen ne couvre-feu bi le président Macky Sall da ko décrété woon ndax mbas mu tàbb ci réew mi kon dañuy ñëw rek ànd ak moom. bi surtout ndax xam ngeen ko Sénégal dakaar ak Thiès dañoo nekk ci couvre-feu ñaari fan yu ñu génn yëpp wala ñetti fan yu ñu génn ñu seetlu woon ay tension yu bëri bëri rawatina ci banlieue bi waaye ca Médina aussi ca Grand Yoff ca Cambérène nag gox yu demee noonu tax nag ñu ni tamit ñu wàcc ci terrain bi xool nu mu mel tey ci troisième jour couvre-feu bi ak le ak le préfet de Guédiawaye suñu tournée bi nag dinañu yóbbu ca tali bu mag. Euh, commissariat bu Pikine buntu pikin euh, tali Icotaf tali bu bees police bu Thiaroy tali Diallo Yëmbal Malika police su Malika Kër Massar brigade de gendarmerie bu Kër Massar plan Jaxaay donc comme nu ma leen ko leen ko expliquer sànq tuuru banlieue bi la ñuy def donc xool parce que banlieue bi aussi tàngoon na trop fan yee ñu génn ci début couvre-feu bi mais foo signaalee que depuis bu ñu déparé ba léegi gisuñu sax ñu bëri ci mbedd mi laal la euh, euh, ci mbedd mi bay gis ñi nga xam ne ni dañuy fippoo ki taal pënu ñëpp ngi ci biir ñëpp a ngi ci biir kër yi donc euh, gëm nañ ne ndaw ñi ñëw fur et mesure ñu ngi koy ñu ngi koy intégré donc ñu ngi jël Icotaf bi noonu war dem sax ba ay Kër Massar ak Jaxaay ak fëpp presque tuuru tuuru tuuru banlieue bi la ñuy la ñuy xam nga yow guddee moto nga yor moto moom doo wax embouteillage mooma téye doo wax amuloo amuloo alibi foo nekk ba 19 heures jot war nga xam ne danga war a ñibbi parce que 21 heures la couvre-feu di commencé te ñii li def nii yéen lañ koy defal ah waaw léegi maintenant li nga def nii mi ngi mel ni kilifa gi jël décision tere li muy def nga ne yow da koy violer. te ay daan mun na la ci fekk comme ça ah. donc bu ñuy def yi yéen yenn a tax ñu koy def donc yéen ñëpp da ngeen si war a jàpp yéen moytu yi d'accord ah man awma dura wax nag ci micro bi moo tax waa maa jégalu bu bëree bëri bëri waaw xam ne li gars yi di nekk nii lu dëggu la lu wér la quoi na si ñëpp bàyyi xel. je suis le commissaire de police Mame Arona Ba commissaire d' arrondissement de Pikine donc comme vous le voyez nous sommes sur le terrain et le dispositif déployé se situe à quatre niveaux tout au niveau de l'entrée de Buntu Pikine il la route nationale nous savons que c'est très fréquenté par les véhicules à la suite de la déviation. Donc nous avons un dispositif assez conséquent qui regroupe au total plus de vingt éléments déployés sur le secteur et en plus euh, un véhicule de patrouille de la brigade de recherche. Comme je le disais tout à l'heure, donc c'est quatre points névralgiques qu'on a jugé nécessaire de maintenir lors de ce À l'entrée de Buntu Pikin, euh, au niveau du rond-point Helcom Bash, il y a aussi un dispositif Donc ce sont les deux entrées principales qui mènent sur, sur, sur la ville euh, de Pékin. Les autres entrées, c'est mag et Taliboubès. Nous savons que ces deux entrées permettent aussi de se faufiler dans les autres secteurs de Tcharoy, Guédiouaï, Yumbel, Guinaouraï et tout ça. Donc nous avons jugé nécessaire de verrouiller ces quatre points pour essayer d'asseoir dispositif à ce constat. nekkoon le commissaire de Pikine moom tamit bokk ci délégation bi nga xam ne ni préfet moo ko jiite kon gis ngeen ni ay citoyen la yi nga xam ne nii dañoo gis ngeen sànq préfet ki nga xam ne nii conscientiser na ko waxal ko wax ko daal ne ko. vraiment liggéey bu ñuy liggéey du pour lenn pour ñoom la rek pour seen wér gu la pour seen sécurité et tout donc dañu yem fii tourne bi dañ koy continuer presque dinañ def tuuru banlieue bi yëpp donc constaté woon nañ ne temps yëpp dafa amoon ay tension mais bu ñu déparé ba léegi noté wuñu benn tension bi nga xam ne nii gis nañ ko vraiment tout est calme pour l'instant bay sànni ci voilà euh, Mbissade comme ni nga ko gisee euh, ñu gisandoo ñu ñun ñëpp ak mbokk téléspectateurs yi tout d'abord ma leen di yoo di leen ziar si ànd bi ñuy ànd ak ñun euh, depuis le début ki dem gis ngeen ni ànd naak Mbissane ñu dem sur le terrain dugg Guédiawaye Pikine dugg côté Yëmbal ah, Mbissane dugg fi nga xamante ne mooy jàmm gën gis fa nag mu tàng jër par rapport ak tey am na un peu de changement parce que avant-hier deuxième jour bi affaire bi metti woon na vingt heures nga gis sama gars yi teg seen i pneu commencé di taal mais tey euh, calme am na amul benn problème comme ni ko monsieur le commissaire wax commissaire de géej waaye préfet de Pikine ñu ànd ak ñoom tey euh, di def euh, di xool tey def patrouille di xool est-ce que population respecté na ko mais apparemment Mbissane actuellement fii nit ñi respecté nañ ko carrément ñi ñaa ngi tëdd seen kër waaye nag ñu nemmeeku si benn borom scooter bi nga xamante ne jàpp nañ ko. Euh, boo ko gisee kanamam visage am il est effrayé ndax nee na carrément ñii caaxaanuñu. comme na ko le préfet expliqué expliqué sànq rek. donc loolu la lépp nag dafa jëm ci conscientiser parce que force de l'ordre force dafa jeexal wax maanaam am na droit utiliser dooleem waaye aussi bu utiliser xelam conscientiser tamit peut-être que c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus efficace parce que citoyen bi nga xam ne nii aussi dafa désarmé peut-être xamoo aussi lan moo tax mu lan moo tax mu tardé ndaxte gis nañu circulation bi Dakar aussi nu mu mel embouteillage kii demee noonu bu heure bi di waaj a jot te xam nañu circulation dakaar nu mu mel loolu lépp moo tax la préfet aussi euh, conscientiser ko baax na ñuy jàpp nit ñi di yóbbu les récalcitrants yenn saa yi ñu sanctionné leen mais aussi waxtaan bi aussi da ciy baax parce que communication bi aussi da am solo waaw ñu bëri euh, neewoon nañu tension ñu seetlu woon. ñàkk communication da cee bokk depuis Pikine on n'a pas rencontré de de personne donc vous êtes le commandant corps urbain. OK. particulier. Depuis trois jours maintenant. À part le premier jour, on n'a pas noté de d'incident à signaler quoi. Voilà, c'est bien. Ok. Il y a aussi des aménagements qu'on a fait par rapport à, aux voyageurs qui doivent aller sur l'aéroport, oui. les gens qui vont les prendre. Vous en rencontrez les instructions. Voilà, c'est ça. On va expliquer ça. mais euh, c'est vrai que euh, secteur yu mu laal bëri na secteur yu mu touché c'est énorme certes c'est vrai mais tey yaakaar naa ne nit ki boo amul santé tey doo am euh, doo am kattan bi nga xamante ne moo lay permettre nga liggéey mbisaan euh, ba pare dafa am li nga xamante ne moo ñun demoon nañ ba stade bi nga xamante ne demoon nañ ba amatuñu cas ay un pour cent la ñuy doon am. voilà ñu ngi justement kon police yi après ñu yeggale lu ñu doon wax. ñu ngi kon euh, police Thiaroye fii aussi noté woon nañ fi quelque tension dañuy dugg ci biir dañuy dugg dañuy dugg ci biir normalement donc maanaam ma bàyyi lañ ko voilà Mbissane euh, toujours accompagné du préfet de Pikine moom nag actuellement wàcc na. Euh, vers euh, poste Thiaroye et nous allons voir essayer de voir avec le le commissaire. la situation et l'état du dispositif et vérifier l'effectivité du respect de la mesure par le par les populations. En tout cas, moi, le commissaire Camara, commissariat d'arrondissement de Tcharoy, euh, laa fi am euh, deux mois depuis le début de l'événement. yàlla def nañu guddi boobu vraiment tàng na tuuti mais lu ñu doon wax ci caaroy amul parce que ñu ne Thiaroye euh, dañuy attaqué commissariat de Thiaroye wax dëgg yàlla amul parce que man jour boobu dama nekkoon guddi boobu dama nekkoon sur la euh, côté Tali jalo ak les commandants nous avons dañu bàyyi fii benn base arrière bu xale yi commencé ñëw ci lañu ñu sama eh, mes éléments génn di dàq leen voilà vraiment amul benn xeer amul benn yàqu-yàqu fi commissariat Thiaroye lu ñu doon wax ci information. c'est une fausse inter information amul guddi boobu jàpp nañu fukki nit mercredi jeudi yàlla def nañu aussi ñu commencé di euh, sànni xeer taal ay pneu côté Tali Diallo ak euh, yeneen quartier yi ñetti mbaar jàpp nañu tamit ñett démb laa leen defeere ci parquet de Dakar de Pikine Guédiawaye donc lu ñu doon wax ci caaro yi wax dëgg yàlla amul dara suma nit suma élément kenn yàqul kenn amul gaañuwaay kenn amul ay yeneen métti vraiment taxaw nañu liggéey nañu ba ñu taxaw tem donc vraiment maa ngi leen félicité ils ont été très courageux et encore professionnels. police yëmbal lañ paré ah, loolu la moom waaw police yëmbal ñu ñuy arrêté peut-être. parce que seen liggéey aussi la ñuy def absolument c' est normal que bu ñu euh, gisee ñu laajte carrément ñu euh, rek nan la. donc c'est ça waaw donc may nañu police yu yëmbal euh, bon d'accord premier jour bi xawoon na indi tuuti problème parce que peut il ne comprenait pas mais deuxième jour on a pu sensibiliser wax ci ñaax ne leen waxtaaneen euh, le chef de village ak euh, bajenu gox yi ñu expliqué xale yi moo tax mu waral lii déjà 21 heures ñëpp ñëpp a nit moom da ngay respecté sa bopp njëkk ñu doog laa respecté waaye taxawaalu ci mbedd mi ñu lay jàpp di la pompé loo ko yu ne moom nit war na ko muccal boppam dëgg yàlla ba tey euh, gis nañ fi beneen montage euh, Boucounta ñu ngi fi fan la ñu ngi ba tey si yëmbal station ñu xool situation bi fii euh, dans ce cas vous allez vous allez au commissariat pour saisir le le commissaire la pour le moment pour le moment la situation est calme on veille au grain et aucun incident n'a été signalé quoi. D'accord, ça. Ok. Donc ici dans notre secteur RAS quoi. donc euh, ñu ngi fii juste tournalu tournalu Malika waaw tournalu Malika ba ma juumul sax fii mooy tali xonk. tali xonk ci banlieue bi. ah ah grand. fii mooy tali bu xonk fii mooy tali bu xonk. terminus. terminus waaw terminus. terminus bu Malika kon foofu la ñu nekk. le dispositif en place. le dispositif est en place tous les éléments sont en place. on peut noter aussi que la population de Malika respecte le couvre-feu depuis le début. voilà à 21h tout le monde euh, toute la population se replie dans les maisons. aucun problème à signaler dans notre secteur là. bon euh, par rapport ak communication bi. waaw loolu li nga waxoon la rek. Hmm? li nga waxoon commissaire lu mu waaw waaw waaw. Hmm? donc euh, on est donc euh, fii moom aussi amul lu ñu fi nemmeeku ci incident. gis nañ ne alkaati yi takk der yi force de l'ordre yi ñu ngi occuper les grands axes mhm. mais également ñu ngi def ay patrouilles di dugg ci secteur bi. mais globalement nemmeekuñ fi loo xam ne nii niroog na ak incident eh, gis nañ ni aussi askan bi ñu ngi respecter le couvre-feu heure bi ñu toll gisaguñu kenn mu nekk ci mbedd mi donc loolu ñu ngi ci gërëm alkaati mais aussi di ci sant askan bi bi nga xamee ne nii xam nañu njëriñ bi nekk ci respecter couvre-feu bi donc euh, voilà le secteur il est bien tenu comme on dit nit ñaa ñi nga war a respecté ñi ngi toog euh, seen kër ñi koy wéyal di ko jëmmal muy alkaati aussi ñi ngi ci mbedd mi nemeeku wuñ fi dara daal donc fii ñi ngi sant yàlla bu baax tout se passe bien. ñu rek mais maa ngi woon ci ndaw ñi mhm. ndaw ñi borom xam-xam yi dañ ne gaa dina leen dal waaye du leen tëral mhm. mais aussi ndaw boo gis am na mag bi nga xam ne ni bàyyi nga ko sa kër. te aussi nee nañu mag ñi lay gën a lor ak ñi nga xam ne nii dañoo am yenn jàngoro yu ñuy doxantuwaaleel jàngoro yooyu bokk na ci jabet bokk na ci tension mhm. bokk na ci yeneen ak yeneen ak yeneen fii aussi mooy Kër Massar mhm. Kër Massar aussi di gox boo am solo ci banlieue bi ci département bu Pikine mhm. waaw département bu Pikine ah au début coronavirus bi yëkkati woon na fi jàkkare uh-huh. parce que bu ñu demee ci kanam ne la da ngay gis Euh, matin bi day fees del day bëri nit loolu nag juróon jàqare bu doy doy waar ba mujj bi dañ faa tere woon ñu fay lal au début du de la crise sanitaire mhm. waaw moo taxoon mu juróon jàqare muy aussi gox bi nga xam ne ni gox bu rëy rëy rëy la voilà dafa mel ni nañ bisaan ñu wàcc rek situation bi avec euh, le commandant mel moo nekk ne di ñëw ni ñu koy gisee ci image yi chers ñu wàcc waxtaan ak moom ci situation fii ci Bon, on est venu faire un tour la situation de, dans pratiquement tout le département pour voir un peu le dispositif mais également s'enquérir de la situation euh, et du respect de l'effectivité euh, de la mesure euh, prise par Son Excellence le Président de la République. Donc euh, je suis avec euh, quelques organes de presse. Vous pouvez leur livrer ce que vous avez constaté sur le terrain. Donc nous intervenons à Keur Massar dans le cadre de l'application des mesures du couvre-feu euh, dañ fi nekk tey pour sàmmanteeg ndigal yi suñu kilifay jël lu waral couvre fa bi maanaam nit ñi war ñoo dem bég dikk bi ak ñuy war a doxantu yëpp dañ ko dañ dañ koy dakkal diggante juróom benn waxtu ba 5 heures du matin donc ci loolu lañu nekk fii léegi ñun ñoo fi nekk tey donc tey boo gisee suñu disponibilité fii dañoo am ñoo xam ne dañuy taxaw di saytu oto yi ak tamit ñoo xam ne dañoo taxaw di naan nit ñi waroo leen euh, doxantu ba waxtu bii nii am ñoo xam ne nag ci oto yi la ñuy nekk ñoom ñoom seen i seen i seen i seen i rôle seen i mission mooy dugg ci dëkk bi di xool ba xam ku fa bi respecté nañ ko ci biir koñ yi ak ci biir euh, gox-goxaan yi voilà donc loolu lañ nekk di def dep depuis loolu ñu ngi koy def biir Kër Massar nag daanaka commandant de brigade bi moo nekk nii euh, ñi nga ak moom travers renseignement yi ngi jot ci xale yoo xam ne dañuy dugg ci koñ bi di di lax ay pneu wala en tout cas di di def comme ñeneen ñi ngi defee mais boo gisee depuis lors ça se passe bien on est sur le terrain ñi ngi ak euh, ñi ngi jël suñu matuwaay daal. Euh, salaamaaleykum man maay colonel Ibou man maa yilif gendarme yi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci région de Dakar. Euh, comme ni ngeen ko ñu ngi koy wooyee légion ouest euh, bu ma fàttalee un peu euh, ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mars li ñuy wax coronavirus ou en tout cas Covid 19 dafa xawoon en tout cas gagné réew yi yëpp rawatina fi Sénégal loolu poussé woon nag autorités yi ñu jël ay matuwaay jël ay mesures yuy permettre en tout cas ñu éviter mu gën a law. ñu koy wax état d'urgence euh, boo xam ne dafa ànd ak couvre-feu loolu nekkoon mesure boo xam ne en tout cas euh, dafa ànd ak ay restrictions euh, en tout cas jéem a wàññi un peu déplacement nit ñi ci biir biir dëkk bi ñu def ko dem ba ci digg bi affaire bi wàññeeku ah naturellement pour ñu mën a bàyyiwaat ni ñi jël seen activité ñu lever mesure yooyu mais bu ñu xoolaatee xam ne aussi bon peut-être feebar bi dafa dellu siwaat mois de janvier même autorité jalaat encore ay motuwaay la nga xam ne moom lañ defoon ba maîtriser situation bi ñu tegaat ko euh, pour gën a maîtriser waat encore li nga xam ne mooy. walante bi euh, colonel Ibou Wàcc moom moo yilif euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci département bi. donc ñu ñëw moom tamit mu doon def patrouille. Mhm. mu tase fi ak préfet mu rafetlu ko bu baax. ñu nit ñu rafetlu bu baax taxawaayam ndax boo yónnee ay ndaw mhm. comme ni nga ko waxee day baax ngay dem di leen saytu mhm. mais lu mu wax dafa important Kër Massar ñëpp xam nañu dafa rëb mhm. comme yëmbal ak Pikine euh, bëri ay tension mais euh, nee na début bi métti woon na mooy première jour ak deuxième jour mais troisième jour bi ak euh, tey nemeeku nañ ne am na stabilité am na kalm amul benn problème 21 fekk na ñëpp ñu fatu mbisaan ñu nekk nekk situation bi nga xamante ne euh, bu ñëpp defee comme nii comme waa Yëmbal Pikine Keur donc je pense que ni euh, coronavirus bi dina fi jóge Alioune Diané nee na seddaay bi rek moo tax billaay la jeunesse bu jàppee du bàyyi on attend s'il y aura prolongement Euh, s'il y aura le prolongement ça va chauffer misaal mu dekk loo xamante ne ñu ngi ko doon wax euh, ni ki bërki démb que affaire yi douze jours lay lay lay lay durer pour le moment ñoom nag ñu ngi xaarande bu fekkee am na prolongement ça veut dire que ni ñoom dañoo takk seeni i seen i jàjj toog di xaar mais ak lu ci mënti doon bisaan toujours yooyu aussi uh-huh. foog ñu expliquer parce que le président uh-huh. douze jours yu ma jël noonu daa am droit jël te amul avalu assemblée nationale mm. sinon lu mu ci nara a yokkaat rek il faut mu am avalu assemblée nationale te am na benn loi projet de loi bu ñu dugal assemblée nationale googu da koy may latitude mu yokk ko ba am un mois ba ci un mois nga xam ne nii du consulter assemblée nationale mu décréter couvre-feu bu urgence amit sanitaire amee comme lu mel ni crise sanitaire wala catastrophe yi yenn yi donc mu euh, euh, décréter couvre-feu état d'urgence un mois. Mangom Sow. nee na personne ne cautionne le comportement de frondeurs mais li amul benn sens pourquoi ne pas faire ces patrouilles au milieu de la journée pour ne pas que les personnes se rassemblent dans les marchés les arrêts de bus et autres euh, je suis Moustapha Ndiaye préfet du département de Pikine Vous venez de faire une tournée dans la banlieue en cette période de couvre Qu'est-ce que vous avez retenu après cette tournée Voilà, comme vous l'avez remarqué, comme dit, nous avons sillonné en tout cas le département de Pékin. Dans un premier temps pour euh, vérifier un peu l'effectivité de l'application de la mesure de couvre-feu allant de 21 à 5h du matin. Et on s'est rendu compte que globalement, les populations, les Pékinoises et les Pékinois, ont euh, respecté vraiment dans la grande majorité cette décision de, du chef de l'État. Bien entendu, pendant le premier jour, comme partout ailleurs, on avait enregistré quelques manifestations qui étaient surtout le fait de jeunes. Euh, mais très vite, la situation a été maîtrisée par euh, les forces de l'ordre qui ont su vraiment gérer avec euh, tact, mais également avec intelligence, ces mouvements d'humeur-là. Mais aujourd'hui, on a fait, comme je l'ai dit, tout le département et on a constaté effectivement que les populations adhèrent à cette mesure de couvre-feu. Dans un second temps, ça nous a permis quand même de nous rendre aux côtés de ces voyants hommes de Euh, de vaillants éléments des forces de l'ordre pour leur apporter notre soutien, pour leur apporter notre réconfort, mais également pour euh, les euh, encourager. Et on a vu, en tout cas, les dispositifs au niveau de toutes les unités, que les dispositifs étaient en place et qu'ils étaient en train de veiller scrupuleusement à l'application stricte de cette mesure de couvre-feu. Euh, ça m'a donné aussi l'occasion de m'entretenir avec euh, certains chefs d'unité qui avaient vraiment, notamment celui de Charoy et de Guénaouraï, pour les réconforter, mais également leur porter toute euh, notre euh, assistance et notre soutien et les féliciter de l'intelligence, mais également de la maîtrise qu'ils ont eue pour pouvoir euh, repousser ces quelques bons turiféraires qui ont été jusqu'à vouloir les assaillir. Donc euh, ça nous a permis également de, de rencontrer au niveau de certains points euh, du département que effectivement la mesure elle est bien suivie. Donc c'est un sentiment de satisfaction que nous tirons à la fin de cette, euh, de cette euh, tournée. Et vous me donnez l'occasion aussi de vous remercier, de remercier votre chaîne qui, nous, qui a couvert l'ensemble de la tournée pour porter ça à l'attention des populations, mais également vous nous donnez l'occasion de dérouler un, un plan, un, un, aspect de notre plan d'action parce que le comité départemental de gestion des épidémies que je préside a un plan concocté un plan d'action avec un volet important axé sur la sensibilisation et la communication. Donc, euh, vous nous permettez de parler aux Pékinoises de, et aux pour leur dire qu'effectivement, cette mesure de couvre-feu-là a été décidée par le chef de l'État pour arrêter la propagation de cette euh, euh, euh COVID-19, mais également pour freiner la propagation de ce, de ce virus. Et je crois que si tout le monde continue à respecter comme il se doit cette euh, recommandation des service de santé, euh, bientôt nous nu débarrasserons de ce virus-là. waaw tey dañu dama jëloon décision euh, dem ci biir département bi xool li nga xam ne nii noon la couvre-feu bi tëddee ci biir département bi Euh, mais également euh, xoolaale nemmeekuwaale ñi nga xam ne nii ñoom ñooy les force de l'ordre euh, nan la ñu taxawee ak seen taxawaay ci biir département bi ci pour faire respecter cette mesure là alors bi ñu defee tournée bi gis nañ ne partout fu ñu jaar jaar nañu def nañu département bi pratiquement yëpp dem ba Kër Massar vraiment gis nañ ne nit ñi waa Pikine en tout cas ñi li nga xam ne nii moom la chef de l'État décrété muy couvre-feu de vingt une heures à cinq heures du matin ñi ngi koy respecté loolu aussi ñu koy rafetlu di leen ci encouragé di leen wax ne rek euh, noonu la euh, naam ci bu bisu bu njëkk bi amoon nañu nemmeeku nañu woon ne am na yenn euh, xale yuy jógoon di wane ne ànduñu ci waaye loolu aussi ay incidents yu ñuy regretté la mais également ñu ma félicité waale les forces de l'ordre yi nga xam ne ni fekk nañ leen ñu am ñu téye axe yi fekk nañ leen ñuy def seen liggéey taxawaay temm ne bu lii nga xam ne nii moom la chef de bëgg ñu fexe ba mu mu nekk ci biir département bi euh, tax na aussi ñu dem fekk ji leen fi ñu ne waxtaan ak ñoom laaj leen mais ñoom ñëpp képp kuñ ci laaj nee nañu daal globalement couvre-feu bi ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy respecté fii ci département de Pikine amul benn incident à part yi ñu jotoon am ci premier jour bi mais depuis lors comme on di situation bi maîtriser nañ ko globalement nga ñu may ma aussi ma gërëm leen ñoom xam ne def nañu euh, liggéey bi de la manière la plus professionnel parce que euh, naam amoon nañ ñu jéemoon jóg dal seen kaw mais ñoom ak seen dal ak seen professionnalisme fexe nañu ba Euh, dara ñaaw ci fexe nañ ba amul lenn benn mbir boo xam ne ni dinañ ko ci dinañ ko ci regretter donc tey euh, aussi ngeen may ma ma gërëm leen rek sant seen chaine bi ndaxte man maay président comité départemental de gestion des épidémies te dañoo def benn plan d'action boo xam ne dafa am benn volet bu am solo muy volet communication tey yéen bi ngeen ñëwee ànd ak man à travers votre euh, chaîne dangeen ñu may ñu dérouler une partie de notre plan d'action la axé ci sensibilisation waxal rek ak nit ñi ne xam ne ne ñëpp jàpp ne ni nga xam ne nii moom la président bëgg muy décréter couvre-feu euh, njëriñu askan bi la ndax bu ñu toppee digtal yi nga xam ne nii tëbuñu rek jël ko waa kër docteur ñoo saytu ba xam ne fii mbir mi toll bu ñu limité wul déplacement yi bu ñu limité wul contact yi dinañu dem ba mu ëpp loxo te bu ëppee loxo aussi ñun ñëpp lay lor donc vraiment ñi ngi ñaan population bi ñu gën a continuer di respecter l'état d'urgence la di respecter couvre-feu